loolu day na waar trop voilà. alors tey xam li ñuy voilà li ñuy taxaw ci mbir li ñuy sàkk li ñuy sàkku ci autorités yi moo di bind na leen ay bataaxal yu bari ay yooni yoon di leen yëgal li xew Talibou Dabo mais su leen bind bataaxal yi dafa mel ni bataaxal yi dañ koy jël dugal ko ci pobel bi mbaa ñu jël ko dugal ci seen poche mbaa ñu bàyyi ko ca ordinateur ba li ñuy sàkk mooy nañ jël seen i responsabilité ñëw dëgër piir ñi nga xam ni ñoo nekk ci yoon wi kenn mënta jàllale oto fas yi di menacer di di dàq nit ñi di leen euh, mena di leen euh, bëgg a matt nañ jël seen i responsabilité dégager leen suñu ko deful nag la neen lu mu ñoo xam. plan d'action bi comme ni ko suma naataan waaw plan d'action bi mooy tey moom dañu génn tey dañu daggal liggéey bi euh, bañ ni duñu laal créé ndax situation bi mais may nañ leen diir fii diir ay fan. su réglé wu problème bi jàpp leen ni grève illimité sax mën naan tali bi daa bokk waaw waaw ànd seeni élève ngir li nga xam ne moo am ci lycée bi te ngeen gisal ko seen bopp dañ ba faaw moo di yoon boo xam ni du yoon bu rëy yoon bu xat la kenn mënu fa jaar ak oto ñu fa yeew ay fas fas yi di neefare di di di di di menacer nit ñi pour matt leen fas yi kenn mënut a jàll ñiy defar brique nekk fa loolu moo taxoon tey ñu ni na dakk parce que sooy dem di liggéey ci ab lycée war ngaa mën a jàllale sa oto war ngaa mën a dox te doo xalaat fas matt la loolu moo taxoon tey ñu génn tey lycée Talibou Dabo nii na dakk na affaire yi yem na respecté enseignant na respecté école loolu moo waral tey ñu génn. ndax am lu mu mais gàllankoor na lu bëri parce que xam nga sooy jàng di xalaat sa oto fan nga koy jaarale yow professeur bi mbaa ngay xalaat naan fas mën na ma mat élèves yi aussi yi am yi nekk ay handicapé gis nañ ni yoon boobu da ko waroon a pavé maanaam da ko waroon a dër mais yoon bi kenn dëru ko seeni morom ñoo leen di jàpp di leen gangar gangaree di leen indi pour ñu dugg ci lycée bi am na sax benn information bu ñu jot yàggul am na élève boo xam ne gisatuñ ko ndekete dafa bàyyi jàng dem daara parce que yoon boobu nga xam ni pavé wuñu ko moom euh, da euh, amul ku ko jàpp ku ko jàppale